sëñ Bay Mansour barka ca gannaaw baayam Muhammadu Mansour barka ca gannaaw Alaaji Mansour ay sëñ Bay Mansour barka ca gannaaw baayam inni alaqtu bi rabbil bayti wa tuure ma in raaytu fatan fi daaka Mansour burdu nek lo xamni ni bu mucc ayib la ki ki nga xamni moko way muy Seyd Mouhamadul Buseyri man sal hadj Malik manon tan tere bu mu wayal bopam khilas wala nuniya wala benen waye rek pour beug yeugal nit ni ne man dama nek ko xamni bu ubbeeku kula, ci lepp lu meuna don motax mu tan burdu burdu di fukki buntu buntu bis bu nek ñu jang ben buntu jumaji Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu diggante 1902 ba 1904 mu julli ko tey bu ñu demee tey ba xalifa bi Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mansour ndax ñi fi jaar ñëpp def nañ ci seen ñaq am na lu fa def waaye yàlla nga ko sottalee nag ci loxo ki nga xam ne tey mooy Seydi Aboubacar Sy Mansour thème bi yónent bi se bi sëriñ bi joxe ren mooy innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yónent bi moo wax ne dañ maa yónni pour ma ñëw mottali yenn yi léegi jikko yooyu nga xam ne yow amoo ko woon boo ñëwee da nga koy jël nga yóbbu ko yow mii ñëw gàmm boo demee nga mën cee dund dundal ci sa njaboot man leen cee teral ba ëllëg yowmal xiyaam xalila yahuja wan zila bi tiwaawani tiwaawanu fiihal yumnu lil mutayaamini kuy ñëw dëkku leer nag da ngay fexe ba booy ñëw nga duy ca leer ya duy ca leer ya ba doyal boo demee man caa dund yow ak sa njaboot ba ëllëg wala ba déwén boo ñëwaatee fekkaat fi kilifa yi loolu daal moom lañ leen soñño di leen ko ñaaxee أخلى الرخ في جدوان